العذاب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله به فمن اضطر غير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم السؤال الأخير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم ويذرون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون صدق الله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين يعلم يعقلون الذين يتبعون القول فيتبعون احسنه وياهما نبتدي هذه المسابقه التي تنظم في هذه القاسم المباركه لتمثيل السندات مسار الدولي لتلاوة القرآن الكريم وتجديده في المملكة المغربية الشقيقة وشكرا على الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم wàcc ci suuf xam naa ni suñu mbokk njaayeen yi ak shérif <laughs> ak njóobeen yi waaye defe naa ñëpp la nag fa tabaarakallah dañuy def pause dem añ dallu tuuti nag soog a ñëw incha allah jóge rek joxe résultat yi fekk itam ñi yeneen invité yi man a egsi surtout waa ambassade bu Maroc incha allah ambassadeur bi su ñëwul dina yeble su ko defee euh, kilifa yi itam dina am ay kalimaat yoo xam ni daañ ko jàng joxe ko fi insha allah ñu ngi ndokkeel ñëpp nag wasalaamu aleykum wa rahmatullah kon mbokk yi fa tabarakallahu ni ngeen ko gisee maanaa concours bi daanaka xale yi ñu bëri jot nañoo tari macha allah ñi nga xam ne dañ leen a jël ñu jàng ci riwaayu warsh ñi ñu jël leen ñu jàng ci riwaaya xas ñi nga xam ne nag ñoom mokkalaguñu dañ leen di jox rek fu ñu fu leen neex ñu euh, jàng kon mu mel ni dañu dañuy euh, pose rek ni ko maam Alfa si waxee incha allahu taala bu ñu jullee tisbaar euh, jegeen yeeg ndóoyeen yi dem xewlu ba pare buñ pare incha allahu taala ñu daal di dellu siwaat waaye bala ñuy dem rek incha allahu taala sëriñ maam Alfa yaa ngi direct ci Asfiyahi TV tabarakallahu ñu bëggoon a xam rek fi mu nekk nii dafa mel ni concours bi mi ngi bëgg a sori fan ngeen ci toll ak lu ci des. fi mu toll nii daal yaakaar naa asalaamaaleykum sant yàlla bu baax a baax li nga xam ni moo ñu deseegum mooy ñi waroon jàng ñëpp jàng nañu comme ni nga ko gisee xam naa ni dina seere ndax macha allah muy góor di jigéen ak furwa yi ci nekkoon yëpp fara xifz ma tawas yassara bi riwayati warsh ak ma tayassara bi riwayati al uxra ak fara xifz xamsat ahzab ñom ñep jàng nañu ñi nga xam ñoo doon lajnatu tahkim yor wàllu jury joxe nañ seen ay note gaañaa ngi koy calculer légui nak dañuy wàcc dem mëna julli tisbar mos dara dallu soog a yéeg joxe résultat yi fekk yeneen invité ñëw inshallah ñu leen di sant bu baax baax. jërëjëf jërëjëf jërëjëf euh, sëriñ Maam Alpha Sy ba léegi euh, ñu ngi ak euh, sëriñ Pape Makhtar Kébé tabaarakallaahu ñoo dundandoo concours bi nga xam ne def nañ ko fii di musabaqatul quran bi nga xam ne xale yi def nañ ko di jàng fi alquran ju set wecc tabaarakallaahu mu mel ni daara yi ak sëriñ daara yi ñi ngi góor góorlu waaye xale yi ñi ngi góorgóorlu fa tabaarakallaahu la ban commentaire nga ciy def. asalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. ñi ngi leen di ndokkeel. di ndokel wa Asfiya yeb ci njiital pap Omar ak pap Khalifa ak yéen ñi nga xamne ne yéen a ci terrain bi di liggey liggey bu sel bi jëm ci rew mi jëm ci diina ji ñu sant yàlla bu baaxa baax ci musabaqa bi nga xamne fondation Mohammed VI l'ulama al afariqa section Sénégal ñoko organiser ñu sekk ko suñu doom yu baax yi nga xamne ñi nga bayiko ci région yi bok ci Sénégal yeb ñëw wane ne alhamdulillah alquran mi ngi def liggéeyam ku déglu xale yu ndaw yi nga xam ne seeni at sax bareegul njàngeen mu rafet bii ñu jàng kitaaballahi alkarim dafay wane ne liggéey bi mag ñi doon liggéey te tey mu mujj ci ñi nga xam ne ñoo leen fi wuutu liggéey boobu ñoom mujje wuñ puso mu réer te nag alquranul karim léegi laa koy wax sëñ Abdul Qadir ma ne ko ñu ngi sant yàlla bu baax a baax Sénégal bokk na ci li ko téye leeru alquran bi nga xam ne moo fi jolli ay xale yu ndaw yoo xam ne amaguñ bàkkaar di ko jàng yàlla di bëgg malaaka yi di bëgg ñu baax ñëpp di bëgg kon daal ñu ngi ndokkeel suñu bopp di ndokkeel daara ji di ndokkeel suñu kilifa yi nga xam ne ñoo nekkoon ci kanam di aadaau lajnati tahkim ñoom itam seen liggéey sell na rafet na te aw na ci yoon di ndokkeel zawaayaay yëpp di ndokkeel kër yëpp di ndokkeel xalifa yi di ndokkeel umma islamique bi yëpp di sant itam buuru Maroc mi nga xam ne ci liggéey liggéeyam bu sell ak yéeneem ci liggéeyal islaam ak alquran moo tax muy organiser lii te tey niñ koy organiser organiser fii ci Sénégal lañ koy organiser ci fanweeri réew ak ñaar ci Afrique bu liggéey bi sottee bu Ramadan bi ñëwee incha allah ci la ñuy organiser concours final bi ñi ngi ñaanal suñu doom yi nga xam ne ñoo ci bokkoon. يلا ما يلندم تكون كرباني في مروك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شر رحمة أن تبارك الله يوم بكون تي نيجا حمد نيوي لين تحكيم بي تبارك الله ندخ يوم بنا تي خلي تي جانجي نيوته تبارك الله أكتمت نيجا حمد ما شاء الله رف مل دال مير مخاور نسير الحمد لله رب العالمين وحيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وخدك يلا نيخونا باسكو نيو في يب am nañu mustawa soo fekkee ne examen rek mun nañ wax ku am na moyen mais nag concours la du duñu seet rek ku nekk ci kaw ñu jël mais yëpp am nañu mustawa ah kon ñu ngi leen dekkal bu baax a baax wax dëgg yàlla jaar na yoon bu baax a baax wax dëgg yàlla defal nañu lu ñu mun defal nañu lu mun xam ne nit nag mutul mais wax dëgg yàlla def nañu lu ñu mun. alhamdulilah asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu. fa tabaarakallah mu mel ni rek niñ ko waxee sëñ Babacar Mbaye Lo tabaarakallah mu mel ni yegsi nañ ba fii ñu ngi jëm pause bu ñu ñëwee incha allahu taala fas yéene joxe résultat yi macha allah léegi lan moo des ci programme bi ak ñi nga xam ne ñu ngi leen di séntu ci ay délégation wallaay sëñ Babacar defe naa ni tey ku fi teew bëgg nga ndax xale yi seen njàngin rafet na rafet na sell na. fay wane ni suñu mag ñi amuñu morom waye ñiñ fi bayyi ñi ngi góorgóorlu te léegi ñëpp jëlaat nañu alquran tabarakallahu liggéey bi sell na rafet na séré na nak ndax xalé bu ci nekk war nga mëna jitu waye nak yalla moy dogal point yi di ëppante donte le xaj na niveau yi mën naa tolloo ko ñi ngi fas dem wajal añ préparé julli julita kusan delu siwat ko defee kilifa yi teew ambassade bi danañ fi yeble ko wax ci seen tur xalifa généraux yi nekk Sénégal dana am kuy wax ci seen tour tur sëñ Abdourahmane Kunta maam Alpha mi ñu dénk wàllu milafu musaabaxa bi dana wax euh, tabaarakallahu sëñ Abdul Qadir Mbacke wax ci turu professeur Rawane ak turu professeur Cheikh Khoureychi Niass ak turu membre bureau bi su ko defee ñu joxe résultat yi jox xale yi seeni cadeau am na cadeau yu am solo yu leen waajal kaamil yu ñu binde fii ci réew mi kaamil bu ñu bind firi ci wolof ak kaamil boo xam ni buuru Maroc ci boppam moo ko defar yooyu lañ leen bëgg a jox comme ay cadeau boole ci itam seeni transport tabaarakallahu jataay bi jeex ñu ñaan yàlla ba déwénateeg jàmm ak yeneen i activité nag yoo xam ni fondation bi dana ko def waaye yéen jàppaleen ni ay partenaire ngeen ndax lu ñuy def yéen la ñuy àndal defandoo ko it waa Maroc it ñi ngi suivre bu baax a baax nii nga ni ngeen couvrir événement bi di leen ñaanal yàlla tawfiq di ñaan ñëpp gën leen jàppale gën leen bàyyi xel ndax Asfiya ñun la fi nekkal liñ naan askan wi la fi nekkal waaye Asfiya moom ñëpp la fi nekkal macha allah Baba Babacar yow ñu sant la ci sa engagement ak sa yéene ak sa xàmme ak sa taxawaay ak sa bëgg xam-xam waaye ak sa bëgg xadara bi macha allah yi ñuy wax yëpp mën ngañ ci wutu wax ko ndax doomu daara nga comme ñun barakallahu fiikum jazakumullah euh, jërëjëf jërë ngeen jëf mbokk yi kon tabarakallahu euh, niñ ko waxee rek dañuy daal di dem rek euh, dem julli tisbaar incha allahu taala buñ paree ñëw joxe résultat yi après nag def cérémonie bi macha allah kaddu yi fii jib-jib fi lépp da ngeen ko seetaan en direct ci Asfiyahi FM incha allahu taala kon mbokk yi ba ci kanam ak jàmm allah xaaral ma xamal ma xamal Pogba xamal. mbokk.